asalaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi Wadane Sougou sëñ Wadane Sougou ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk la ci bërëb bu tedd euh, ci euh, Daaru Xafoor Daaru Xafoor nag bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bu ñu waxee Daaru Xafoor xel yëpp dem ci Serigne Saliou Fall euh, ñu ñëw nag ci bërëb bu am solo boo xam ne ni bërëb bu am wàccuwaay la muy béyti ñu bëggoon a xam Daaru Xafoor lan nga nu mën a nettali tuuti wala lan nga nu mën a baaxee tuuti ci taarixu Daaru Xafoor dëkk bu tedd bi ñu nekk. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ki nga si ne mooy sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lépp lu bëgg a liggéeyal waajuram yàlla may mu liggéey ko ci tal ñaanal itam sëñ Cheikh Jëmm may ko lépp lu bëgg a liggéeyal maam Cheikh Ibrahima yàlla may ko ko te ko ñaanal itam sëñ Asan mi nga xam tey jii mooy sëñ Saliou Fall fii yàlla bàyyi ko fi suñu kanam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal waajuram wi mu liggéey ko waaye liggéeyal tam ñaanal tam sëñ Matar Sougou mi nga xam si mooy xalifab sëñ Jéeri Waadaan yàlla may ko lépp lu mu bëgg a liggéeyal waajuram mu man ko tal ko mën leen sant nag di leen gërëm di leen xamal ni fii ñu nekk ci Darou Khafor mën naa fi wax lu bari ndax sët yi samay nijaay sax maa leen mag ndax man soxna Roqay Fall muy taawub sëñ Mat Sali Fall mooy sama waajur cinquante neuf fekk na ma may dox fii ñu dama yónni Mbàkke ak sama tànk may ñëw dara xabur gi di fekk sama maam wax yónnent bi doxaat dellu kon yàgg naa fi fekke naa fi lu bare bare bëri bu ñu bëggee wax xam tuuti ci taarixu daaru xafoor comme ni ñu ko waxee loo ñu mën a wax tuuti ci taarixu dëkk bi dëkk bi nag moom li ma la ci mën a wax mooy dëkk la boo xam si ni ci dëkk yi ñàkk Tuubaa ci la bokk ndax su fekkee ni xool nga géopolitique wu murit da nga gis ni Serigne Touba dafa def ay dëkk yoo xam ni danga nga jaar di ci jaar ci wetu kii Njaareem Dala Daara Xupoor Ngaabu wetu Daaru Musti wet ga ca kes ca kaw tam également noonu la noonu lañ ko ñege ba ci wetu Tayif gi donc noonu organisation la boo xam si ni yàlla moo def sëriñ bi ci xam-xamam ak bu baaxam dafa ko Daara Xupoor gi itam Serigne Saliou Fall njëkk koo sañc am na ku fi jabaloon ku dul moom mu jiitu ko fi waaye bi mu fi ñëwee mu am fi ay jafe-jafe ku tedd gi woo sama maam wax ko mu sañc ko bi mu koy sañc itam ñëw fi mbooloo mi mu àndaloon bari nañu fii ci daxaar gi la woon bi mu toogee ci daxaar gi mun leen am na gan gu fi ñëw de waaye fekkee ne ñëw na bu kenn jóg fi mu toog man la soxla man lay jëflanteel yàlla def fi mu toog ñu toog ab diir jaan ju jóge ci wetu teen ba ci sëñ bi bi ñëwee bu jub sëñ bi ba jub sëñ bi sëñ bi jaasi ji mu yore woon la jóg dagg bopp bi bi mu daggee bopp bi ca pël ga ñu daal di wax ni kilifa ga génn na fi xëy na dafa daje xëy na dajewul waaye loolu noonu la demee mu sañc dëkk bii dëkk bi bi mu ko sañcee képp ku ni ku baax ñëw na fi gouverneur général doon ab tubaab indi na fi ay sàq weñ décoré ko sëñ Saliou Fall ci mbay mu bari mu daan béy saq yooyu fii lañ nekkoon ci penc mi sëriñ Fallu bi mu toogee ci jël bi moo ñëw ne dafa soxla sàq yi njox ko sàq yi waaye loolu am na fi ginnaaw bee tam képp koo xam si ni maanaam da ngaa mas a kook sam xel ñu di la faj docteur l'islam moo doon sëñ Saliou Fall suñ leen dee fii bala moo yàgg nga wér bi fi sëñ Saliou nekkee di ko def di faj ba jóge fi noonu la sëñ Modou Saliou Fall doon def loolu fii ci dëkk bi ginnaaw sëñ Modou Saliou Fall tam ki nga xam si moo ko wuutu noonu la dëkk bi tëddee ba seen sëñ ba ci ñëpp. xam naa bu ñu ko toppee dina yaatoo ginnaaw bu ñu xamee tuuti ci taarixu dëkk bi euh, dinu bëgg xam tuuti ci ki nga xam ne ni mooy Serigne Saliou Fall ndax bu ñu ko waxee. ñëpp xel yëpp day dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall diggante Serigne Saliou Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall loo ci mën a leeral mbokk yi ñuy seetaan. Serigne Saliou mbiram dafa biire lool xanaa da ngay wax lañ ci xam rek waaye moom xam ko jafe na ndax ñëpp wax nañ ni bi nga si ne ku baax ki mi ngi maam Cheikh nga koy seet dafa am benn bis ku baax ki ñëw fa ba mu fa ñëwee. maam Saliou moo këpp tànk ba ba mu ko këppee ba maam Cheikh ñëw mu ne ko ah, am na ko fii ñëw di la ñëw di sedd ni ko kippet bi mu ne kippet tànk bi saamam Cheikh dafa daanu bi mu demee ba xelam si mu ne ko maam Cheikh dama bëgg nga dem wuy ji ndax su ma la njëkkee wuy ji doo seddu wuji gu tedd gi soo ma su ma la njëkkee wujji doo séddu waaye soo demee ba séddu ba nopp ma doon ñëw ñetti at laa la may soo demee ba am fa ñetti at naa ñëw fekk si la fa noonu lañ def ba yàlla def maam Cheikh dem bi sëñ yu ñëwee itam dañ koy yëkkati teg ko ci loxoy sëñ Ibrahima Sarr moo ko yore woon waaye sëñ Ibrahima Sarr tam ko yore yàggu fa ci loxoom ñëw ci sëñ Touba ne ko man kat ku ma booleel day def léeg mun ma fas yi wax na nangam mbaa wax na nangam wax na nangam fas yeeg njënaaw yi daal lu ñu wax da koy dégg ku mel noon nag defe naa ne moom li ma gënal daal mooy nga jarat ko mu am Cheikh wax nañ ni fii barabam bi nekk ci armée li fi lañ koy fi la ko fi la ko sëñ Tuubaa yeewee bi mu koy yeewee tam da ko ni li fii sa mag am li fi sa mag am ci ab liggéeyam am nga fi lu ko toll kon léegi dama bëgg nga dellu noonu lañ ko yeewee mu ñëw bi mu ñëwee tam njëkku la ñëw daal pour kii kër ngaal gu la njëkk a dem yàgg na kër ngaal gu ba mu jógee kër ngaal gu nag la ñëw sañc fii wa daara xapoor ci ci ndigalul ku tedd ki sanc bi moom wax naa leen ko léegi waaye maam saaliwu moom ay mbiram dafa doy waar. ndax fi la nekk ba wuy ji suñ borom ak ci man at la aussi. fii la wuy jee boromam wuy ji boromam boobu itam li may wax maam Assane Awa Jaxate moo ma ko nettali nee na dafa am benn bis. sëñ Saliou woo ko fekk fi sëñ Modou Saliou fekk fi sëñ Modou Anta nee na moom la fekk bi mu ko wooyee génne barkeel yu sëñ Touba joxe barkeel yi xam ne moom ko maam Cheikh jox di ko tegal ni ko Assane mu ne ko mu ne ko soo fi jógee na nañ ma defal lii nañ ma defal lii nañ ma defal lii wax ko li mu bëgg lépp yàlla def daal ko ne Assane mu ne ko waaw mu ne ko lu mus la am da ngeen ko gis néew boo xam si ni mooy sàkkal boppam perkaal mooy sàppam boobu lañ koy toppatoo loolu sëñ Saliou wax ko ko maam Assane nee na ba mu ne da ko su ma su àddina tam su ngeen fi jëlee buñ ma wàccee loolu ci kër sëñ Daam Abdourahmane Lo su ngeen demee tam ne ko sa waajaa ngi nii moo wax nañ ko fendi loolu maam Assane nett na ma ko nee na kaw bi ñu ko bi ñu ko bi ñu ko bi mu génnee àddina ñu ko fii ndaam lañ ko wàccee bi ko wàccee maam Abdourahmane Lo daal di ñëw wër ko su muy dàllam wër ko jaawale ko da koo jaawale daal ne ah kon de app ba jot na ndeke dañoo defoon app boo xam si ni ñoom ñaar dañuy tegaloo nee na bi ñu ko yóbboo Touba jullee ko ba noppi di gas saa bu ñu gasee xaalisu ngóorlu mooy génn xaalisu ngóorlu bi génn ñu lal kaal di ko ci def ba yàgg ñu ne nañ ko dem waxee sëñ Modou Moustapha Mbacké dem ci sëñ Modou Moustapha daal ko ni ah ñun kat sëñ Sall dañoo jaaxal ndax bi ñu koy denc saa bu ñu tibbee peel li ñuy génne xaalis la mun leen ah sans bàyyi Sall di leen doon boppam yemal leen ko bopp su ngeen su ngeen su ngeen su ngeen su ngeen continuer da ngay gis lan la dul loolu moo tax ñu bàmmeel bi xóotul woon ñu daal jël mun leen lañ fa yéene lañ ko def libee ak sikki daloo ko ca biir loolu mu doon wax naan moom mooy defal boppam lépp moom mooy defal boppam lépp. kon xam naa bu ñu ko toppee dina yaatu te programme baa ngi bëgg a tàmbali kon sëñ bi mel na ni dafa waajal boppam waaye ñoo ngi ci bërëb bu am solo mel na léegi ñu ngi wax ci biti ne bërëb la boo xam ne sax ñu ngi ci tudd ay jinne lan nga ñu mën a nettali wala lan nga ñu mën a baaxee ci taarixu bërëb bu tedd bi ñu nekk. bërëb bii moom sëñ Mat Saliou laa fi nekkaloon keroog bi muy génn àddina maa ngi moom ñu nekkoon ci bërëb bii ak soxna Roqee muy bind di jox may naan muy bind di jox may di sangu maam aar maam xay Fall fekkuñ ci biir daal ko ni Modou Modou Saliou mu ne ko mu ne ko Fall mu ne ko Modou Saliou du bàyyil ma dem billaahi wallaahi taala bàyyil ma dem. kay jërëjëf sëriñ ma dem mu ne ko soxna Fall woowu ñu la ma lay woo demal toog sama toog ci bayti bi di bind bind benn lettre sëñ may amar ca Mbàkke ni sama ni soxna sori ma ne ko jox señ may amar ndeke boobu da koy boole sëñ may amar ñu toog ci bari bii barab bii am na lu bëree bari loo xam ne ay jinne dañu fee nekkoon bi ma nekkee xale mu ngi nekk ay 43 44 dama daan def saa bu ma dawee dugg ci biir barab bi daw dugg ci barab bi ni teel ci biir benn bis may benn bërët ni teel ci biir fekk saa moom toog ma dugg ci poqataanu li mu sol lu mel nii loo xam amul loxo damaa fekk fi ay yam billaahi wallaahi taala na ñam ñu continuer tuuti rek ci ba taarixu bërëb bi loo ñu ci mën a baaxee ak Guinée lu mu gën a mën a leer rek incha allah. Eh, li ci gën a kii daal li ñu ci mën a leeral mooy ginnaaw bi ñu nuyoo mbooloo mi nga xam ne ñu ngi jandoo ak ñun di leen jaajëfal di siyaar ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ni bis la boo xam ni dañoo daje fii Baye Fall yi njabootug maam Saliou ak njabootug maam Cheikh Ibra ngir tàmbali fi ab liggéey boo xam ni dañ koy liggéeyal Cheikh Ibra ak sëñ Saliou ndax Cheikh Ibra Fall mooy sëriñ Saliou sëñ Saliou mooy moom ñoo bokk soxna bu Ndiaye ak sëñ Modou Fall Roqeya bokkit seen pas-pas bu mag boobee nga xam ne moom lañ fasante woon ak sëriñ Touba ca Mbàkke Kajoor te bañ fasanteek moom pas-pas booba ilaa yawminaa haazaa pas-pas ba dara fecciku ci dara yolumu ci loola nag lañ moo moo day mel ni lii xaj na ya waroon naa yàgg am waaye wax nañ ni sëñ Assane Awa Jaxate moom muy wax nga xam ne moo nekkoon ñetteelu xalifa maam Saliou bokk ak sëñ Basiiru Faalu maam Cheikh Rafa soxna Awa Jaxate Diop nga xam ne bu ma naan Cheikh Ibra ak sëñ Saliou benn lañ mën nañ tee firndeel ne sëriñ Cheikh Ibra dafa yore soxna suñuy wax soxna Awa Jaxate Diop ba am ci sëriñ Basiiru Fall jëlaat ko jox ko maam Saliou mi mu am ci sëñ Assane Awa Jaxate nga xam ne ci dundam la ko defee eh, kon ñoom seen lépp benn la mu mel ni nag ma sëñ Assane moomu moo mas di wax ne seen maam Serigne Saliou de moo ne mag mu gasum kan ba mu xóot mu jël ay mbiram def ko ci suul ko dëgg ci tànkam nee na nañ ko ko bàyyil noonu ba mu yàgg mu ne waaye neewoon na dinaa mas a teggi sama tànk waaye ca ndaw ña kon su ñu demee ba ki fi mujjoon ci ak njabootam di bàyyi ndaam Saliou bàyyi koo fi lu toll ci at ak genn wàll ñi fi bàyyi ñuy ay sëti maam taxaw fas yéene liggéeyal maam Saliou ci dëkkam bi kon day mel ne lam ne woon dinaa mas a teggi sama tànk waaye ci ndaw ñi kon jot na loolu nag moo sabab lii tey ñu bëgg ko amal ci barab bii nga xam ne nag mooy bayti bayti bii noonu mu ko waxee maam Saliou lu ne def na ko fi fi la wàcceeb liggéey fee ñu lal moket bee fee fa la noppaloo moom moom maam Saliou wuy ji Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall magam ja bi nga xamee nag fii nii loolu ngay wax ci jinne yi sëñ Modou Fall tawal nee na ma baayam wax na ko ni ko ma am na bis day am kok ci murid di la dafa jokk woon ci kilifa mujj jóge fa ñëw jox boppam sëñ Saliou Fall kookee di borom xaas tëkku ko boole ko jinne mu fàdd ko waaye nee ñu maam Saliou keroog dafa tëj fii jinne ji ko fàdd kilifa jinne ja daan ne man de ni may saafaraa jinne mooy du ma ki def sax du ma jëflanteeg moom waaye kilifa ak jinne jooja laay jëflante ne leen ku bëgg a gis jinne ubbil bayti bi nga dugg ci di nga ko gis ndax dama ne ko bàyyil kii mu ne danañ ko bàyyi tàkkusaan ma jàpp kilifaam ne ko kon dañ lay téye fii ba tàkkusaan bañ bokk mu ne leen mënalu leen dara ku ko bëgg a gis duggal gis ko lu ne nag def na ko fii fii njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp fekk nañ ko fii sëñ Abdou Khadir Mbacke bi mu fi mujjee jëm déndey gi dafa jaar fii dugg siyaare barab bi génn taxaw ci bunt bi wax ne fii dafa naqaree xam ngi nii li fi sëriñ Saliou Fall dëxëñ ci li ko sëñ Tuubaa defal kenn xamul nom toll daal ne lii ci àjjana la keroog bi mu demee ci ngan gii mu jëmoon ci déndey dafa mujj nit ñi di fa bàyyi ko ñëw fii di siyaare si barab bi kon la Baye Birane Baye doon wax naan daaru xafoor ku fi ñëwut bëccëg it raam nga ñëw fi guddi kilifa murit ku fi ñëwut bëccëg ñëw nga fi guddi buñ ko toppee dana yaatu daaru xafoor mel na ni dëkk la boo xam ne nii dëkk bu riche la bu am taarix ci yoonu murit xam naa jamono toll na foo xam ne nii dëkk bu nekk day màgg di am lépp loo xam ne nii dafa maase ak jamonoom xam naa laaj bi ñuy laaj jubluñu ci ngir jàmbatoo la lenn mais daaru xafoor tey bu buñ doon xool lu mu gën a soxla wala lu mu manqué ak fi jamono toll lan ngeen ñuy baaxee foofu waaw fii moom mën nañoo wax ne ndax wàllu administratif administration bi bari na lu ñu fi bëggoon a def waaye ci jamonoy maam Saliou moo doon def lu ñu fi bëgg a def mu ne nañ ko yóbbu dalag yi boo déggee loolu suñ Musaa Ka naan ba Serigne Touba demee dala maam Saliou Fall mi gën di góor dane dala mat nab dal ba def fa daaru xafoor waaye ci jamono bi ñu toll gis nañ ne dëkk bi soxla na ay fajukaay donte dala gi am na poste de santé waaye dët ko toll ni maam Saliou barabam bii mu sancal boppam dañ ko fee war a indil jumtukaay yi mu soxla yëpp ndax bu ko ñii fi nekk defutit tubaab bi nga xam ne ñoo nekkoon colonialiste yi ñoom xamoon nañ koy maam Saliou fekk nañ ko fii ne ko dañ laa bëgg a defal teraanga joo xam ne mooy fii di sa daaru xufa dañuy natt wet gu ne ñetti kilomètres defal ko titre foncier jox la kayit ndax la ko li ko nee na booba gis nañ ni mboolem ku mas a wéré di wéré di xel wala wéré di yaram bu masaan ñëw fi maam Saliou saafara ñu ne ko ne ni fi mbooloo mi wàcce te ku fi ñëw bu delloo li mu bëggoon mu am ko ñun ñoo yore askan wi foofu nga leen féete moo tax ñu bëgg laa defal teraanga ji maam Saliou ne leen fii bi ma fii ñëw dama fee fekk ñu dëkk wër ko te bu ngeen ma defee loolu dana duggaale ci suuf yooyu tey bëggumaa xatal kenn ma fi yabal dama fee ñëw ngir dimbalee bi yónneewaat ko ay sàqi weñ ba nëga ni mën nañ laa woon fu mu ci dëkk bi nekkoon nag kon sa daara yi ko wër li ñuy liggéey lii ay dencukaay la yoo xam lu ñu ci denc dana mucc ayib sàqi weñ yooyu tey buñ doon wut wala bu ngeen doon dagaan lu ko mën a wutu ci jamono ji lan lay doon waaw moo tax ma ni war nañ ñu fee defal ay poste de santé defal ñu fi ndax forage bii ci dala ndox mi awutu yoon bi ñu ko bënnee tamit dañ ne woon bu ko kenn naanagum ndax li ci nekk am na lu ñu ci war a dindi te loola ba tey dindi ko dañoo mujj jox ko nit ñi di ko naan te waxoon nañ ne képp ku koy jëfandikoo boo amee juróom fukki at dana la indi gàllankoor kon loolu tamit état war na koo xam ndax loolu suñu alal la ñoo ko moom di fay suñuy impôt ñu war ñoo servir li ñu war a jox kon war nañoo ñëw dox suñu digganteeg fitna yooy andil ñu fi poste de santé bëgg nañ fii Maam Saliou forage ci dëkk bi waaw suñ ko defut it taalibe sëñ Tuubaa yi moom danañ ko def waaye loolu ñoom la war ndax ci dëkk bi ci lañ bokk. waaw ñu ngi lay sant di la gërëm xam naa dem àggale leen ñu. man sëñ Bada laa tudd euh, maa ngi jéggu sax alin Bada Fall di doomi sëñ Daam Saliou mi nekkoon caatum maam Saliou ki fi mujj bàyyi ko